am ñu nu yàgg si lool yàgg noo yàgg noo dig yàgg a wax ak ñun ñu yàgg dagg suñu yitte bàyyi suñuy kër te ku ne xam na ne saam dafa wéet kër goo ci dugg benn jeeg a fa nekk mbaa ñaar te dañ tëj suñu kër yëpp ñow toog suñ dikkee ka nga xam ne moo ñëw fekk si nu danañ ko wax lépp li nu bëgg wax ko lépp li nu soxla mu dig ñu lool dig boo xam ne ñun buñ fi jógee rek danaa ñun moom pare nan lépp sotti na waaye tubaarkàlla buñ ca jógee rek fa la lépp doxe dàbb géej dootuñu gis dara te ñun nag loolu wax dëgg yàlla dañ ciy bëgg a sonn nag ku ne xam na ni amuñu doole amuñu courant mbedd yaa ngi lëndëm këris xoolal fii nga toog ba fi sa bët yam xool ci sa ginnaaw gisoo fi dara luy leer suñ jugoon tey jii suñ weesoo courant boobu suñ jugoon ji jii bés set jot nga 10 heures nga ñëw fii kër goo fëgg di nga fekk jeeg ba ub këram bàyyi fa doom juy nàmp fu mu jëm jeeg ba fu jëm ma nga wuti marché su demee ca marché ba amul place de jéeg ba amul taabal de palaatam lay jël dem ci nawleb gorom bu yor njaayam woo ko wàññil ko njëgu téeméer ni ko boo jaayee téeméer am ñaar fukk nga yendu ca di jaay ba mi di jot moo xam mu jar moo xam jarut su jaree di nga am ñaar fukk de waaye bu jarut doo am ñaar fukk ndax loolu mettiwul paasee xaalis ah yow tamit koo xam ne da ngay xëy dem ca marché ba di wut ñaar fukk yoo am kay bu la financé xaalis di nga liggéey ndax ku ñu financé xaalis fii ñi fi toog ñëpp ay jaaykat lanu man nañoo jaay financé xaalis mu dem te la mën a jaay jënd ko jaay nga teg ko ni ko lii kat boo ko jaayee lii nga ciy am lii nga may delloo. bu ñu joxoon téeméeri junni dañuy woote suñu yaay nday njaay mu gore mee nga xam ne du lekk dara bàyyi kenn ñaari salaamaaleykum du ko ci lekk day woote ba ñu dajee mu xool ki yeyoo ñaari junni xam ne kii boo ko joxee ñaari junni mu liggéey delloo la mu jox ko ñaari junni. xam ne kii boo ko joxee fukki junni mu liggéey delloo la mu jox ko fukki junni ma nga nee di sunu yaay di sunu goro waaye lekkul dara bàyyi kenn te ko am fulla la am fayda ko mën a respecté doomu aadama la ñun pare nañ pour jàppale ñëpp képp ku fi ñëw li nga diggee ak ñun boo ko defee rek ñu jàppale la waaye nag li nga diggee ak ñun soo ko deful rek ñu bank sunuy loxo ndax ku ne sa carte yaa ko moom te fi ay forot newu fi de kenn ku ne sa carte d'identité nga toog ñëpp ku ne am lamp yee ngeen di jàkkaarloo moom mii sang bu baax bii moo def sa kenn yëgu ko yaakaar naa su ñëwee toog fii jàkkaarloo ñu jàppale ndax koo xam ne nii xàmmewoo kenn ñëw rek def def sa bëggoo kenn ko soo dikkee la ñu sant danga ko def bu baax bi xam ne ayir gaaf laaj leen ba lu tax ba ne ayir gaaf 2002 ba léegi nii ñi nga xëccoo Sénégal ñuy football ba tas sa jotuñu Sénégal Macky Sall ba lan am li am ci senegal jot coupe bi xanaa loolu moos yaakaar naa ne benn président mosu ko fee am ñaata président ñoo fi toog Macky toog Sénégal gaynde yi gañe réew mi kon kooku képp ku ko bañ da ngaa dof sa xamoo lay def di ñu ah, euh, léegi doo mësaa dem Dakar jóge fii cinq heures ba cinq heures nga egg di dëggoo ko dugg fi Njaga Njaay yi tey nag mu dugal ñu yoon woo xam ne léegi nga dem dikkaat ñibbi si waat sa kër kon Macky Sall jàmbaar la Macky Sall daal di jëlaat ponkalu hôpital tabax ko tegal ñu ko ndax lan bëgg suñu wér gi yaram kon kooku ku ko bañ da ngaa def koo fi defagul ban président moo fi defagul yoon woo xam ne dañuy yóbbu ba Dakar ibbi ponkalu avion Macky Sall de ñu ngi ñaan dara ji Serigne Touba li mu Sall deuxième tournée lan fa def lépp yëg nañ ko ñun de waxuñu Macky Sall waaye yow de giñ naa fi Serigne doo toogoon fa sa kër gee yónni sëñ Massamba ak i oto la dem leen wateel Macky Sall dañ ko koy wateel sa force ndax yow rek leen gëm foo joxañ dagg ndax kuy wàlli yaane fa dëkk daa neexut sa yow fii sa dëkku maam la sa ñëpp bàyyi seen dëkku maam daw si ñëw lu tax yow li nga bëgg mënoo ko am saam yaa koy am ba mu neex Mbàkke balay sa ndax da nga ànd ak président bu am doole président daa Macky Sall tabaxal nañu hôpital defal deuxième corniche defal ñu yoon wi yokk lamp yi jox ndaw yi ndaw yaa ngi nii jigéen ñi da leen a jox ñuy liggéey di defar dëkk bi dëkk bii ñu ngi koy defar ku ko defar Macky Sall ndaw yi soo xëyee fekk leen fi yoon ñuy bale di toon di def yëpp sa Macky Sall moo koy fay sa loolu mus sa am fii mus sa am fii sa dëkk bi ñu koy tabax di ko defar ba mu baax sa mus sa am fii Macky Sall yëkkati na ay lamp def fii marché def fii hôpital def fii yëpp li ñu gën a bëgg nag sëñ bi ñu la koy ñaan ñuy financement neex na lool waaye tey daal ay debukaay lan amul yoon yoon daal amuñu ko Mbàkke laay sax ndax tey jii soo toogoon ba 10 mu fekk la marché Ocass bee nga bëgg a dem Dakar ñu bëgg a ñëw saam yaa ñuy yóbbu ndax taxi bu ñu wax doon la fayee 3000 nga lànk est ce que maanaam bu nawet bi ñëwee. kon na nga bëgg nga gën ñoo jàppale bu baax a baax Mbàkke baal la yéen Touba Sam yi nga xam ne fi lañ ñëw tey muy janatul maxwa ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sab sant te du rafetlu bu baax a baax a baax seen taxawaay yéen soxna yi ñun nag soxna yi dégg nañ seen kàddu te kàddu yi ngeen fi yëkkati rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax amuñu lu ëpp dëkk bi amuñu feneen fu dul Touba yàlla dogal ne Touba am na wàccuwaay ci senegal ginnaaw dakaar fii mooy deuxième capitale ñu gis président Macky yaram ak teeyam ak dalam ak bëgg réew mi mu jox war ma kii nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mamadou Mountakha te li may wax nii yéen. nekkul lu may waxantu yàlla boole na ma si njabootu Serigne Touba mu bokk si kër Cheikh Ahmadoul Bassir mun taxaa nekk fi di sëriñ Touba ñu koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér président Macky Sall xam nañ fi mu teg kilifa gi nga xam ne mooy suñ suñ mooy suñ suñ Touba muy Cheikh Ahmadoul Mountakha def na ko waajur def na ko kilifa ba lépp lu Serigne bi sumb fii di ko liggéeyal Serigne Touba su ko ko sëriñ bi waxee midi. balaa une heure président Macky la def la sëriñ bi bëgg kon nag ñun mën nañ si seede te loolu dañ koy seedeel askan wi seedeel ko yéen yi nga xam ne yéen a nekk fii saam ngeen xam ko loolu muy suñ mbokki soxna yi ak góor ñi di leen xamal ne président Macky Sall lu ko waaye mun taw xal nekk na nit koo xam ne am na yéene si Sénégal wante am na yéene fii ñu dëkk muy Touba la ma say jox exemple mooy soxna yi ngeen xam ko yéen saam gi nga xam ne fii laa nekk autoroute ila président yi ko amoon yéene bëggoon nañ ko wante musta am mosuñu kaa def président Macky Sall moo jël si coobareem ak si kàttanu suñ borom defar Ila Touba ba tey boo jógee Dakar di ñëw Touba da ngay teelaat si Touba. may wax ne am na président yi ko fi jiitu woon si Senghor ba Ablaye Wade wante li mu def fii Touba amul benn président bu ko mos a def ñun nag nañ am fulla ak fayda ba ñi nga xam ne. man ni ma ko mën a jàppee ay kan lañ ay soskat lañ nekk ci biir dëkk bi di manipuler jigéen ñi di manipuler jeunes yi di leen wax ne président Macky Sall nangam ak nangam ak nangam sëriñ bi ñaan na ko président loolu ñuy wax dañuy kàcc dara du ci dëkk. man mun naa leen kaa seedal mi ngi xam ne yàlla boole na ma ci Cheikh Amadou Bachir président Macky Sall dafa nekk nit koo xam ne boo ko xamut di ko séen nii jaxasoo moom doo xam yaatu biiram xol gi nga xam ne am na ko ci réew mi Sénégal rawatina Touba gi ñu nekk. la ma see dolli mooy yéen soxna yi daan ngeen amee ay jafe-jafe si wàllu hôpital muy mat Matlaboul Fawzayni bii ngeen daan dem te yàlla dogal na président Macky Sall gis nañ lam fa def si ay milliards yokku ko loolu rek doyoon na wante daa yëkkatiwaat ay milliards defar hôpital bi nga xam ne benn la si Afrique ndax man mii di wax ak yéen dem naa si fu ma demul ci àdduna bi bëriwul dem naa Afrique wante hôpital bu mel nii président Macky Sall bàyyi dëkk yëpp ñëw defal ko fii Serigne Touba. yéen soxna yi yéen lañ ko defal yéen la ko président Macky defal te yombal la nañu ñun ñi nga xam ne ñooy seen i jëkkër tey boo leen tawatee wala ngeen bëgg a def épreuve euh, benn opé euh, bëgg a opéré yàlla mun na la see defal tawfeex loolu doo leen si am benn jafe-jafe pour jéggaani kon loolu war naa tax rek ngeen jàpp seen loxo président Macky Sall bañ fankat yi ak ñi nga xam ne dañuy ñëw di di di sos ngeen bañ leen ne déggu ndax dañuy fen rek la ma dolli mooy. université bii nga xam ne Cheikh mun Mountakha ku ko xam xam ne mooy yéeneem président Macky Sall daa yëkkati addiyam jox ko Cheikh Mamadou Mountakha mu defal ko si université bii. kon loolu ñun bu ñu doonee ab taalibe dëkk si dëkk bi gëm Serigne Touba suñu ngor suñu. suñu dignité ak suñu suñu suñu xel may nañu ñu jël suñu carte électeur bi si woote ba jotee yéen soxna yi ñun ñëpp ñu ànd dem wooteel président Macky Sall jox ko majorité assemblée nationale. te loolu yéen am ngeen si part bu rëy yéen soxna yi te gis naa seen taxawaay. di leen xamal ne nag président Macky Sall assainissement Touba waxuma ko de wante ki nga xam ne moo fi nekk porte-parole Serigne bi. muy suñ bas Abdou Khadir nee na milliards yi mu def fii Touba si assainissement bi ku ku say nopp tëx wala nga bañ a dégg ngay bañ a dégg kaddu googu wante Cheikh Bass Abdou Khadir nee na li mu fi def benn président mosu kaa def si assainissement bi te nawet baa ngi ñëw mbedd mi nga xam ne dañuy mbedd yi yaatu yëpp président Macky Sall yaatal na ko def ko ay tëli lamp yu bëri mooy fii ngeen wax ne accès gu fi wante loolu dégg nañ seen tawat te incha allahu rabbi ne nañ ko àggale président te lépp lu dugg si noppam na na ko saafara loolu soxna si maa leen koy maa leen koy seetloo di leen xamal ne fii ñu nekk nag muy Touba gis nañ li fi président Macky def te gis nañ femmes yi mu ngi jël ay financement lu mel ni euh, euh, ministre de la femme gis nañ taxawaay bi nga xam ne moo ngi koy def Touba gis nañ DER bi nga xam ne président Macky taxawal na ko pour lan jege askan wi jege jigéen ñi nga xam ne duñ duñ am benn tolof tolof pour yëwanal leen seen nekkuwaay ak seen nekkin seen biir kër wetu seen jëkkër kon soxna yi ma dégg seen tawal muy si wàll financement di xamal nag ne balaa may ñëw si wàllu financement yi dafa am lu ma bëgg leeral tuuti si yenn ñi nga xam ne nee nañu ay opposition lañ nekk fii si dëkk bi di sos ak di kàcc loolu mayuñu leen ko ndax si dëkk bi ngeen dëkk wante ñun si dëkk bi lañ dëkk te xam nañ leen bu baax a baax a baax a baax ndax da ngeen di toog di inventé si biir élection yooyu weesu daan ne sëriñ bi borom ñaari tur yi man du si jaar daa ñaan président Macky Sall président Macky Sall daal di bañ loolu ma leen di wax fii ma nekk yéen saam yéen soxna yi loolu ñoom ñoo ko wax ñoom opposition bi te dégg naa si kenn koo xam ne Abdou Mbacke Bara Dolly moom toujours ay waxam ak lépp ay nar la ay ay ay kàcc la. wax na fii ne sëriñ bi ñaan na président loolu président Macky Sall gàntal ko loolu ma leen di wax yéen waa Saam yii ak yéen woon yéen ñi nekk Touba loolu du dëgg lépp lu sëriñ bi mos wax président lu jëm si Touba président Macky Sall na na ko fekk si sëriñ bi defal ko na ko bëggee mbirum ñaari tur yooyu ñuy wax ñoom ñooñu ñooy làqatu du wax wante moom Birizel. Bruxelles euh, Bruxelles euh, Bruxelles géew nga xam ne dafay dem muy Bruxelles moom xam nañ tubaab ba nga xam ne moom la fay fekk moom ab du Mbacke moom kon bu mu ñu tax a wax ndax ñun xam nañ ko bi seen ma ngay dem Bruxelles am benn tubaab boo xam ne moom la fay fekk di nekk ak moom kon buy wax mbirum ñaari tur yi na xoolaat boppam barki démb rek mu ngi taxaw moom ba ñuy wax na ko na ngay bàyyi rocc gi ngay def sa kanam ndax xam naa tib yi yi mu doon jënd dafa seer xam naa moo tax mënatu kaa jënd na dem bàyyi xel ne moom am na loo xam ne da wax ne moom sëtu Sëriñ Tuubaa la kon na bàyyi xel tib yooyu nga xam ne da koy diw si yaramam muy rocc di ko waxal nag lu woonoon wonni na ñu ngi fas yéene nañ nekk ak yow si dëkk bii lépp loo baax si cin li rek ne nañ ko ŋeer ngir président Macky Sall lii nga xam ne sumb na ko si réew mi di ko defal si réew mi di ko rafet di ko defal Touba gi ñu dëkk duñ nangu kenn mboco mboco di ko yàq te dañ see fas yéene taxaw ngir président Macky Sall am majorité assemblée nationale te su ma waxee yow loolu na ko gëm ndax man awma lu may tiit la ma say dolli mooy dégg naa barki démb ñuy wax ne sëñ Mountakha lu ko président wax du ko def loolu ñuy wax loolu dara du si dëgg ndax keroog si Ndakaaru rek Serigne bas moo wax jëwriñ ba fa nekk muy Mbacke na ko waxal nit ñi ñu dégg na jumaa ji président Macky Sall yëkkati na un milliard dugal si kon loolu man waxuma ko keneen waxu ko Cheikh Bass moo ko wax moo tax ñu jottali woon loolu kon nañ bàyyi di yàq xelu nit ñi xam ne président Macky Sall li ko ñor mooy réew mi li ko ëppoon solo mooy fii ñu nekk muy Touba te moo ngi ci def kémtu lay kattanam di si def loo xam ne benn président defu ko maa ngi koy dégg mu ne morgue bi nga xam ne dañ koy defar si hôpital bi yàlla na ko président Macky Sall yàlla si jiitu moom Abdou Mbacké nay nay xool waxinam ndax moom kenn nawloowu président boo gisee mu wax loolu mooy jumaa boo ko tabaxee ba nopp suñ borom moo ñu bind te képp koo xam ne mos na dund na faatu kon looloo tax mu ne ginnaaw tabax nañ jumaa ji ba noppi te morgu amagu fi nana fi joxe xaalis boo xam ne nanañ fa tabax morgu képp koo xam ne suñ borom jël na yàlla na yéex buñ koy waajal si jumaa yi Masalik ñu mën a dem defar ko ñëw taxawu ko ñëw denc ko loolu la président Macky Sall waxee wante du question ne président Macky Sall yéene nit ñi ñu faatu kon moom waxam na koy xoolaat bu baax a baax di ko xamal nag ne ko mayuñu la dara fii si Touba ñoo ko bokk te ëpp la woon ñu fi cër incha allahu rabbi ne nañ fas yéene ànd ak président Macky Sall nelawatuñu yendooñu lépp suñu temps muy président Macky Sall dimanche bii nga xam ne mu ngi jëm si élection yi incha allahu rabbi ñu fas yéene ànd ak waa Sam ànd ak jigéenu Touba yi fas yéene jox majorité ak président Macky Sall assemblée nationale. yéen nag soxna yi ma leen di waxal ne tey ba ma ñëwee comme li ngeen dox wax si financement yi indi naa leen téeméeri junni yoo xam ne dama koy leen koy jox ngeen wëlbati ko seen biir loolu tàmbali la. wante dañuy ñëwaat fas yéene ànd ak yéen seeni soxla lépp loo xam ne nañ dëgg nañ ko ne nañ ko ànd ak yéen saafara leen ko te du am benn jafe bu soobee suñu borom ma leen di ñaan nag seen carte électeur yi bu leen ko moyele kenn ngeen jox ko son excellence monsieur président Macky Sall ngir mu am majorité assemblée nationale loolu mooy suñu taxawaay si dëkk bi te fas yéene nañ see teg di si dox guddi ak bëccëg ba loolu yàlla antu ko si kattanu suñu borom ñu ngi leen di sant nag yéen waa Sam di leen gërëm di leen ñaanal bu a baax seen taxawaay jigéen ñi bu leen kenn këf loolu moom damay bu leen kenn këf ànd leen doon benn say ngeen jël seen carte yi jox ko président Macky Sall ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla na yàlla dafa jàmm merci beaucoup jërëjëf